سميتها مواهب الخديم في mbokki internet yéen ñi siifar ci Touba Sekhawgui TV ñu ngi leen di siyaarwaat bu baax te ñu ñëwaat fii ci reportage bi ñu def bi ñuy def rek eh, ci eh, wàllum ginaar yi eh, ginnaaw ndigal li tam ne ginnaaw bi ci gëlëm la tey jii nag ñu ñëwoon fii waxtaan ak suñu waajur yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum njaayum ginaar bëggoon waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci ginaar yi tolluwaay bi ginaar yi nga xam ne jot nañu am ak prix bi ndax mu ngi yéeg wala mu ngi wàññeeku bu ko defee dañuy jox suñu papa ji bu defee mu nuyoo ñu commencé waxtaan bi bisimilah. asalaamaaleykum yéen bokk Touba ñun de wax dëgg yàlla moom ni ko sëñ bi waxee maanaam li ko tàmbalee si ginaar ci gëléem. lu ci waay man bu ko yëm bu mu ko xeeb ñun nag yàlla dogal na moom ci gaari lañu yëngu yëngu guñ ci yëngu maam moom xam naa ne am na si xaw a seer na moom mooy gaari Sénégal yi ndax yóbbu dafa yëmbut ndax àll ba la jafee ndax dañ ko loolu soo ko am fa nga ko jëndee fu lay njëkk a jafee waaye du tee moom bu ku ñëw tam maanaam luñ ci ma daal daañ ko jàpp yeneen gaar yi xam ne mooy élevage yi nag moom nga xam ne poulet de serre yi ak pondos yi ak maanaam repro yi rapport bi nag xam naa yéeg ren moom waaye du tee moom ku ñëw daal moom lu fa waay indi daan jàpp ba nga am gaar incha moom daal moom moom fu mu fu mu yàqoo fu ñu yéene mu yàqoo ci ñun waaw lu moom bu soobee yàlla daan daan la jéem a ba nga am euh, ndax euh, instant bii nii nga xam ne corona bi jaar na fi ak yooyu ak itam wàllum mbënn mi nga xam ne bëri na euh, ay ginaar yoo xam ne dee nañ ci yooyu nga jàpp ne ginaar dina manqué ren wala dina am tey dina am ren. ah maanaam yaakaar dana manqué waaye yaakaar dana am dem wax dëgg la maanaam lu ci dee bari na moom bari na ci dee lool ndax maanaam taw bi jàll jàll ci gannaaw ci gannaaw ñaari dong jot nañ ci dee la maanaam maanaam cent lan cent cinq poulet ñaari dong waaye du loolu lépp du ci dara moom du tee maanaam ñun daañu def suñu matuwaay daal fu ñu ko mën a mën a liggéeyanteel ba mu ñëw daal ba gànnaar suñ soo suñ soo man see jot nga xam ne ku ñëw mën a am ganaar daañu ci jàpp ci allah. Euh, papa instant ginar, yan ginar moo commencé bëri fi mu toll ci marché bi. waaw fi ne moom moom pondos moo gën a bëri maanaam gaar bu xonq daanaam waaye moom gisaguñ ko ma fu ñu ko mën a gisee nag ñu ko wër nag fu ñu ko mën a gisee daañu ko indi waaye gisaguñ ko fenn nag moom pondos yi daal moom moom am na na li ci li ci ba ay mille sept cent cinquante ku ñëw da nga mën am incha allah ndax maanaam différence bi nag maanaam maanaam ñi nit day ñëw ñu la gaar mille cinq cent mille mille sept cent cinquante deux mille gaar gi mën nañoo bokk lépp weex te duñ bokk ci bi la ñuy ëppante foofu mooy différence bi maanaam gaar gu dawe bi tootu lañ ko lañ ko jaaye waaye xam nga gaar gu mën a peese un kilo un kilo nangam bu la ko jaayee deux mille xam nga yàlla bu baax jàpp jàpp na baax na lool waaw ah, di ñuy laaj tam ndax ginaar yi naan euh, ordinaire yi nga xam ne nii itam euh, Sénégal gi lañ ko euh, ci ci Sénégal gi lañ lañ juddoo yooyu ndax commencé na am ci marché bi fi mu yooyu nag moom moom moom laa doon moom moom dong moo ci xaw a jafe. ma mhm. tax maanaam mën ngaa dem marché. Mhm. ndax kay may wax ak yow ki nga ko paa bi nga jëkkoon di waxal. Mhm. néew na fi léegi waaye maanaam dafa daan indi ay cent poulet. ma nga ne bu ñu ñëwee tey cinquante la indi. yàgg na ci àll bi lool te boo demee ci àll ba kii da lay jaay kay jaay la kay jaay la nga dajale. loolu ngay dajale ba mu ñëw nag maanaam boo ñëwee nag ñu fi nekk nga jaay leen ko ñëw dellu wutiwaat noonu lañ koy doxal rek bu ko dee lam see am am ko ci te itam lam see am rek yan yan ginaar moo gën a seer fi mu doon nii waaw mooy boobu mooy mooy gaaru Sénégal ordinaire bi boobu moom moo ci gën a seer moom waaw ndax boobu moom fi mu ne fi mu ne da ngay ndax moom mii am na yoo xam ne bi mu ko jënd bi mu ko rancé moom ko jënd benn bi no trois mille deux cent cinquante xam nga dafa aw mu tekke aw 250 wala wala wala 200 francs ndax bo bëggee gëna xontam ak ak ak frame yëpp faaw da ci bëgg da xaw 250 bo cinquante boo déggee gaar dafa sét dafa sét loolu la nag manam fami fami départ ci départ balay séré manam bo doon bëgg manam maanaam ah, xelal ñangeen yeeg faaleen yeeg mbengeen yi nga xam manam dañu bëgg walum ginaar yoy ban ginaar mo ci gënal mo ci gënal ñaar ci ginaar yi. déet moom kay nag ci dakk nak mom eh. way mo ci gëna sét waaye nag ba tey maanaam am na beneen bu bu naan euh, pondeuse boobu. moom moo lii différence ak boobu. bee doo gën a yomb ñor. waaye boo ko toggee ba mu ñor moo leen a xàmmee. boo ko toggee bu mu ñor kenn mënu koo xàmmee. ñooy yem ci safaay ci lépp. waaye nag bee doo gën a gaaw ñor lu rek muy différence bi. waaw ñu benn xamul loolu. waaw pàpp papa kon duñ lay jaajëfal di la wax sa kàddu gu mujj ak itam euh, ban yóbbal ngay jox. ñi nga xam ne dañuy màggal si ak ñi xam ñoo ne ci dëkk bi ci ndigalu sëñ bi. waaw góorgóorlu rek man daal man li may wax li maanaam képp koo xam ne da nga ñëw Touba li xam ne sëñ bi da koo santaane boo ñëwee bu la si kenn jëlee lépp lu sëñ bi tere bu la si kenn fekk mat ndax kan man day wax maanaam ku nekk ci dëkk bii maam li sëñ bi eh, tere nga bàyyi ko fa xéwlu gu ñëw del seen sa wàll waaye nag bu fekkee ne da nekk ci sawaan ba. musu gu ñëw bul sikk sàkk ndagam sa wàll loolu moom leer na ma salaamaaleykum wa rahmatulahi taala baraka yàlla na am màggal jàmm fekk ko ay màggali màggal barke sëñ Fall jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen doon suivre ci site bi di Sekhawgui TV di gërëmaat bu baax seen yéen xam yéen ñuy toog di leen wax rek kon dañuy dallaal suñu beneen waajur nga xam ne moom itam dañ ko fay fekk muy yënguwaat moom itam ci wàllum ginaar yi moom itam xam naa fekk nañ ko fi mu yor benn kees di ko jaay ñu bëggoon xam moom itam mu sànni ci kàddu rek ci lu jëm ci waajtaay bi ñoom nuñ koy waajale ñoom ñi nga xam ne nii ñoo yor wàllum eh, ginaar kon dañ ko jox mu nuyoo bu ko defee mu waxtaan ci wax ci loolu. <laughs> waaw wax loolu ko war yow. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatuh yéen suñ mbokki taalibe yi mbokki mbokki taalibe murid yi ma leen di nuyu te di leen sant te di leen jégal te di ginaar dama wax dëgg yàlla moom ku ñëw am de. ndax Serigne Touba ko def dëkkub Serigne Touba moom dara du fi jafe dara amul ndeeg naka jafewut asa ganaar képp ku jafe say ganaar itam da nga koy weete rek ndax Serigne Touba defal dëkk bi ba noppi lim def moom kenn mënu ci dara day fu mu jaar day neex kon nag koy mën koy jaay say ganaar nga jubluwaale ci jaamu yàlla ak jubluwaale ci màggal li ñuy def noonu duñ ne ci am dara de waaye danañ ci sedd nag na dañ ci liggéeyal Sëñ Tuubaa waaw liggéey bu wér wéer wér lañ ciy defaale man de ko ñëw ji man lu moom man danaa danaa la jëfal ndax nit dana dikk fii de waxaale juróom fukk tegu ma yëkkati juróom fukk tegal ko kooku nag bu dikkoon ci man yaakaar na dana jàmm di te loolu mën a wat sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ma ko jaral nag waaw moo tax dara du fi manqué léppay mat jërëjëf góor gi comme noonu nga ko waxee tam da ci am solo ndax bu ne màggal Tuubaa di di ci def jàppale ci li nga xam ne ci nga féete da am solo ndax nit ñi buñ dawee jëm si si wàllum ginaar tam ko itam loo nga ci am itam du barkeel ndax itam ndigal li rek moo ci am solo ci itam yombal ko doomu aadama yi bañ am ko itam da ci am solo lool kon loolu moom ñu yéen dañ leen di sant taxawaay boobu ngeen ci am bu baax baax baax baax baax itam ndax lu rafet la wax dëgg yàlla xam kon dañ lay jox kàddu gu mujj ji comme niñ ko defoon ak suñu mbokk euh, papa yi bu ko defee itam nga waxtaan ak ñi nga xam ne dañuy ñëw màggal si ndigal yi nga xam ne moom la sëñ bi jox waaw maa ngi li may mujjee wax daal maa ngi ñaanal suñ mbokki mur yu jóge ci àll bi yëpp di ñëw yàlla na leen yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuubaa jàpp le ci ñëw gi mu yomb lool ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm nun ñin fi fekk nga xam ne ñoom nun la yàlla baaxee nu dëkk ak Sëriñ Tuubaa tamit nan leen jàppale ci kaw ni leen mën a jàppalee teral leen gàttandu leen teeru leen teral leen moom lañ fas yéene moom laa fas yéene te sama mbokki murid yëpp ci lañ dem ndax boo déggee Sëriñ Tuubaa ne sama taalibe du dem sawara la tax mu wax ko mooy taalibe yëpp a tabe tabe nag benn jikko la ci jikko yàlla kon ku ko def man ngaa dogu ci ne moom ëllëg yom la xayam da ngay taxee ndax tab kenn du ko lakk te mur yëpp tabe maa ngi mu ñaanal mur yëpp jàmm yëpp ñëpp na ñëpp am loo xam ne nii danañ ko mën a leggane leggane yi tam jàpp ni leen tamuy doon lu lew parce que lun man ci lu baax de noonu fas yéene nañ ko ci def fas naa ko yene bokk te xam naa ne ñi ma nekkal tamit ñoo ko bokk waaw baax na kan jërë ngeen jëf ñu ngi leen di santaat bu baax سميتها مواهب الخديم في المرء والدعاء